أعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين عليهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان وبالهدى إلى يوم الدين مباكي جلدي كان أبن سنتي الله سني بروم تنتقو يالله جمم جتد جمعك جر جلدي سنغو سنغي من سيد الوجود وعلم الشهود سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلم الشهود dellu siwaat nañu ci mbaaxu yàlla ak ndimbalam ak kàttanam ci suñu tafsirul quraan fii ci zawiya bu tedd bu sell bii di zawiya maam cheikh alxaaj omar al fuutiyu radiallahu taala anhu àndante kook mbokki jullit yi waaye àndante kook tubaarakallahu mbokki dëkkandoo yeeg ñépp E, muy tafsir boo xam ni weeru koor wu jot fi lañ ko baaxoo def di ñaan yàlla yàlla nañu ko yàlla nangul comme nañu nanguloo woon gaayam yu baax ya ci barke yonent bi alayhi salatu wassalam ñu ngi ànd ak Safina TV nga xam ni su nekk ñoom dañuy ak ñun jotaay di jël tafsir bi di ko tasaare ci àdduna bi يالنا يالا فايلان fay يالنا يالا دولال كيغا خامني موكو ki دي xam حامدو يوربان بو taxawal محمد البشير تال يالنا يالا bu Thierno Mouhamadul Bachiru Taal yal na yàlla fay ko yëw ndax moom kat jaahada fillaahi xaq jihaadihi la mu war a def ci digganteem ak boroomam ba fuway mana nek ci aduna bi rek nga mën ci jot loolu liggéey bu rëy la yal na yàlla fay ko yéeg na ci li yonent bi waxoon ni balliru ni wala bi aaya jotalal leen ma donte benn aaya la wala balliru ni walaw aaya jotalal leen ma wala donte benn aaya la tey nag suñu tafsir ñu ngi fas yéene tafsir suuratu talaaq mooy saar wi nga xam ni dafay jàngale passé nga xam ni yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon na ni abgadul xalaali inda allahi attalaaqu li yàlla daganal ba pare mel na dafa tàllalaat loxoom bu tedd ba moom yàlla ni lii maa leen ko mayoon waaye maa leen ko ñaan ngeen mayaat ma ko yonent bi nee na passé la daf ko daganal ba pare waye beugul kuko def donte sey bu nek ci ñaari taa rek lay mujj la mag ni doon wax ne sey bo gis mu fasu rek ci tagge lay mujj wala taggo ben kenn ci yeen ya faatu ni tagge la kenen ka dess fi wala ngeen taggo sey bo gis rek ci ñaari tayo yooyu lay mujj muy tagge wala taggo waye bu mu ci am rek saar wi dana la jàngal ci biir na rafet ak bu amee lañ ca war a mu rafet soo gisee balaa passé yi yàlla tëral ci ngay xam ni bëggul fase nee na ñaari couple mooy góor ak jigéen yàlla ne bu fekkee ñu ngi sëy problème am ci seen biir ndax problème mënul ñàkk ndegam ki yàlla yónni woon muy seyduna muhammadin صلى الله عليه وسلم ينساي سخنامي ريرو اك موم موم غادو ريرو نيوم واي نيوم ينساي سني ياي لنيو رضي الله تعالى عنهم جن انهم جميعا نيب يالنا يالا گرم لين ينساي نيو رير اك موم بو جانغي سير دا ngay دگ نيو لا سني ياي عائشه مباخما مسلمه رضي الله عنها دانا خوريروك سانغ بي ba buy waat sax day wax wa rabbi ibrahima maa ngi giñ ci yàlla ji nga xam ni moo yónni ibrahima dootul wax wa rabbi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kon loolu mënul ñàkk waaye su amee yàlla dafa dafa rëdd aw yoon moom yàlla dafa ne bu fekkee ni ñaari way jëncante ñu ngi jëncante dem ba yàgg réeroo am ci seen biir yàlla nee na bu leen ci booleegum kenn jéem leen ko régler ci seen biir waaye règle ga nag nañ koy regle yàlla ma ngi ko jox ku góor ko loolu lay wax ci alxuraan naan su ngeen réeroo ak seen soxna yi fa azzawhunna wahjuruhunna wadribuhunna yàlla nee na sa jabar su fekkee da ngeen réeroo yow mi nga xam ni yaay boroom kër gi na ko waar réeree gu nekk fiñ la naan ko waar na fekk yow mi nga xam ni yaay ku góor ki yaa nekk ci dëgg yaa nekk ci yoon waaye na jooju yenn saa dafa war a nekk sax euh, fa'izuhum ndax yenn saa yi góor ñi ñu baal ma ñoom ñooy tooñ jigéen ñi tooñ yu metti ba pare yaakaar ni ñoom ñoo nekk ci dëgg fekk nekkoo ci dëgg yow yaa tooñ yow nag bu fekkee si soxna daf la tooñ bul tëb tëb fase yàlla nee na fa'izuhunna na ngeen leen waar soo waaree soxna si jariñul nee bul fase fahjuruhunna na ngeen leen tong tong mooy du mere dépense bi nga doon joxe joxe lu toll noonu walla lu ko ëpp waaye soo amee ñaari néeg su tëddee fii demal tëdd fële soo ko amul te am benn néeg am benn lal bu tëddee ci kaw lal bi lalal ak laltu nga tëdd ci suuf diir xëy na boo waaree jëriñul boo defee noonu mën naa mu jëriñ mu ni soo waaree jëriñul nga tong sa soxna jëriñul foofu nag la yàlla wax ni fadri boobu na na leen duma dóor yee nag yonent bi nee na bu mu tërgan dóor yee yonent bi nee na bu mu am cicatrice bi nee na bu mu metti yaramu ki ngay dóor kon xam nga ni loolu turu dóor rek moo fi nekk moo tax suñu benn magum daara dafa daan wax ni dóor yi yàlla wax mooy nga cokkaas ko cokkaas mu ñëw fekk si la ci cokkaas ba mel na kuy fayu nga ànd ak moom daanu ca kaw lal ba génn ci boo kooku sunu magu daara bi loolu la wax mu ngi fekkee waar nga jariñul dara nga gàddaay ko tong jariñul dara nga duma ko itam duma yooyu ma wax jariñul dara mune legi nak setal ñu am xel ci say mbokk nga set ñu am xel ci mbokk ndaw si nga dajale len ci ben neek ya ndaw si ngeen tok say bokk to ay bokkam tok rawati ña ñu doxi woon sëy ba ñaka takkon so defé ngeen tek problème bi len jotale seen digënté ngeen tok waxtaan لا القرآن ni حكما من أهله وحكما من أهلها mu ni soo indee ñu am xel te am xam-xam te bëgg lu baax te bëgg sëy bi régler ci say bokk jëli tamit ñu mel noonu ci ay bokki ndaw si ngeen bokk jotaay toog su ngeen ko defee yàlla ne ne in yurida islaahan yuwaffiqillaahu baynahuma su fekkee da ngeen bëgg rek sëy bi baax ñay defar tamit bëgg li defaree baax loolu sëy ba fa lay jaare defaru moo tax ci jamono Seydina Umar ibnu Xattaab radiyallaahu taala anhu dafa am benn couple bu am problème bi ñu amee problème ñu dem ba couple bi kenn ku nekk woo say bokk ñu ñëw tëju ci néeg ñu waxtaan waxtaan mbir mi mënul régler ñu ñëw wax ko Seydina Omar ñu ko ah, couple ba day fase rek moo ca des ndax ndaw sa waar nañ ko déggul tong nañ ko déggul duma nañ ko déggul ku góor ki woon ay bokkam yu am xel te am xam-xam te sell te set ku jigéen ki tamit noonu waaye waxtaan nañu waaye mënuñoo déggoo ba sëy ba xam naa dafay tas sidna Umar ibnu Xattaab ni dem leen ngeen woowal ma ñi doon régler diggante ba ak ñaari way jëncante ya ñu ñëw woo mbokki ndaw sax ñu demoon ca waxtaan wa woo mbokki ku góor ki ñu demoon ca waxtaan wa bu nu ñëwee toog Seydina Omar ni tëjal leen ma bunt bi ñu tëj bunt bi mu ni jox leen ma yaru lislaam bi yar bi nga xam ni ku naan sàngara moom lañ lay dóoree juróom-ñetti fukki yar ku xas gor moom lañ lay dumaa ku njaaloo moom lañ lay dumaa jox leen ma yar bi ñu ñu indil ko yar bi mu ne ana ñaari kuréel yi ñu doon réglé ñu ne ko ñee ak ñii mu ne ñëw leen nii sama kanam ñom ñëpp ñëw mu ni tëdd leen kenn ku nekk ci yéen dina ko caw ñu nekk caw mu ne waaw waaw ñu ne sayyidna umar du tax nga ni caw mu ne waxu yàlla du dañ yàlla mo ni fab'asu hakaman min alihi wa hakaman min alaha in yurida islahan yuwaffiq llaahu baynahuma yàlla ne su fekke ñu daje ñom ñëpp seen xol ya dafa set sel ñu bëgg rek sëy bi defaru sëy bi dana defaru kon li tee sëy bi defaru wax yàlla du dañ ci yenn la tëdd leen par kenn laa leen di caw am kenn ku yëkkati loxoom ca mbooloom Seydina Omar ne ko loo bëgg wax mu ni ko kon mbir mi man la parce que man nii maa bëggul sëy bi réglé maa bëgg sëy bi tas pour ma takk ndaw si mu ni jeex na kon li yàlla wax bu ñu ko defee rek parce que moom waxuma du am waaye du gaaw a am nit ku nekk itam war ngay roy yonent bi ci loolu sallallahu alayhi wa sallam ci mbaaxam nga ak ci bëggam jigéen ak ci yërëm ko jigéen faw da nga koy yërëm faw itam da nga koy nëbbal ay benke ñenkeem moo tax suma sëriñ ba seydil xaaji malik si radiallahu taala anhu mag ñi nee na daana wax ni man alaaji malik day duma fase jigéen mukk lamma man mënti def danaa ko muñ ngir jëmmi yàlla waaye duma ko wàcc donte moom yàlla boolewu ko woon ak ñu wàcc ay tanef yu set yu sel la ko yàlla boole loon waaye daana wax it yàlla booleeg jigéen ma téye ko ne ma ko war a téye mu xëy ni ma dafay dem danaa ko jéggal te duma ko fayeeku alal dana wax ne duma fase jigéen duma fayeeku jigéen alal duma dóor jigéen duma ŋàññi jigéen duma saaga jigéen duma lor jigéen duma ayibal jigéen man alaaji Malick duma ko doyadal duma siiwal sekkareem man alaaji Malick waaye su fayee dem seen kër duma ko fayli duma ko jëli waaye su ñëwee itam dellu suñu bisil boppam wala ay bokkam indi ko duma ko wax dara moo tax kii mooy sànq kon mag ñooñu war nañu indiwaat seen njàngale di leen roy ci sëy yi di leen roy ci ni ñuy nekkee suñu soxna yi ngir ndax yàlla yàlla mën ñoo dimbale ba juyoo du am buur ne yaa ayuha nabiyu e bi waxal sa xeet isa tallaxtum suñu bëggatee fase annisaa jigéen ña fatalliquhunna nañ leen fase li iddatihinna gannaaw seen idda yi mbërëg bu setee jigéen balaa nga koy fase danga koy bàyyi ba mu gis règle ba sangu nga bañ sëy ak moom foofu nga ne ko wàcc naa la noonu lañuy ñuy fase waaye ngeen xuloo waxante rek nga ne ko wàcc naa la jëlal say bagage sharia waxul loolu sa jabar boo ko dee fase da ngay bayyi bu mu gis règle am julli wul nga yegg ni dafa am ngant nga laaj ko lu tax wo mu ni julli wuma parce que dama am ngant nga bayyi ba mu sangu commencé wat julli nga baña and ak mom ci kaw lal nga ko fase itam idda jimi muy toog ñetti lay doon muy ñetti règle dana la ko wax motax mu ni fa talliquhunna na ngeen len wacc li iddatihinna gannaaw sen mbeureug ya suñu labé sen règle ya yalla ne wa ahsu na ngeen takk al iddata fan ya bu sa sa jabar boko ko bis bu ngi ko fasé ko bind li tax yalla ni ko bind moy dafa bëgg nga xam su fekke dang koy fay li bala jeex nga jëlat sa jabar su fekke dang koy bayyi mu dem su ñetti weer yamatee nga bayyi ko mu ci bonen borom kër motax mu ne wa ahsu na ngeen tak al iddaja ja wattaqullaa na ngeen ragal yalla rabbukum yalla moy seen borom limu len digal na ngeen ko def limu len leen tere na ngeen ko bayyi mu ngi bu ngeen fasé jigéen ñi laa na bu len len genné min buyootihinna ci seen kër ya comme ni nga koy defee rek génnal sama kër wala fase rek ndaw si genn loolu sharia nanguwu ko sharia ne laa tuxrijuhunna bu leen génnee seen jabar yi bu ngeen leen fasee min na ci seen kër ya wala yaxrujna ñoom jigéen ñi tamit bu nu mer ba génn mu ni nag bu leen leen génnee bu ñu génn illaa an yaatina lu dul dañoo indi dañoo tàmbalee def bi faishatin ci ñaawteef mu bayyinatin ñaawteef bu leer su fekkee ndaw si da nga ko fase hmm? idda ji ñetti deret yi mu war a gis walla ñetti weer yi mu war a toog ci sa biir kër la ko war a tooge ndax bi nga ko fasee feeg idda ji di mat sa jabar la boo ko fasee feeg idda di mat jëkkëram nga yaa ko war a jox li muy lekk yaa ko war a jox li muy naan su feebaree yaa koy faj bu ko génnee kër gi soo deewee sax te idda matul daf lay donn su deewee te idda ji matul danga koy donn moom it boo deewee te idda ji matul dana la donn dana la ténj looloo tax yàlla ni kon laa tuxrijuhunna bu leen leen génnee min na ci seen kër ya wala yaxrujna ñoom jigéen ñi tamit bu ñu génn de ilaa an yatiina lu dul dañuy indi bi faaishatin ci ñaawteef mu bayinatin ñaawteef bu leer su fekkee danga ko fase bàyyi ko ci biir kër gi mu commencé jël ay góor di dugal sa kër ak di doxi ba heure bu ko neexee mu soogaan bi ñëw wala muy toog ci ëtt bi di wax lu ko neex def lu ko neex su boobaa génnee ko loolu lay wax ni ilaan yaatina dul dañoo indi bi faahishatin ci ñaawteef mu bayyinatin bu leer wa tilka yii ma la tuddal ni bu ko génnee ak balaa nga koy fase na bàyyi ba mu laab muni yoyu ak ndaw ci bu mu génn muni watil ko yoyu mala wax yeb hududullahi frontière yàlla la muni bu ci def dara muni sens interdit la yo xamni yàlla mo fa def tëb le sens interdit bu ko def soko defé rek musiba man na la ca fekk wala beugul won fekk la ca motax muni watil ko yoyu hududullahi frontière yàlla la dahalam la ومن يتعدى yataadda كو خامني جالغاتنا باسنا حدود الله في على ليميتي fi في limité فا اغ kuka de fakat zalama tonna na so bopam la tadri khamlo la ala mën na yalla yuhdis musas amal ba'da dalika gannaaw bi ko ba nopi amran mbiru bëgg ak delo ci wat sa jabar da ngay gis ko xam day fase jabar ji ni ko génn sama kër ndaw si génn bi ndaw si génnee nga toog ñaari fan ñet sa gif ñenti fan nga xalaat daw si ni mu ni mu daan toggé ni mu daan sañsé ni nga daan nekkee moom ci néeg bi guddi gi yaa ngi moom fa ngeen daan jaar nga xalaataat ko sa xel nekkaat ci moom te booba soo ko bàyyi woon ci biir kër gi jëli ji day yomb tey na jëli ji dootul yomb ndax dem na seen kër da nga yebal sa xarit danga yebal say bokk da lay layi da nga miim da nga joxewaat sa xaalis neexalaat sa jabar mu ni balaa may dellu si il faut nga wutalaat ma ay yére lal boobu dootuma ca tëdd armoire ba dootuma ca def samay yére ndab yama don togge dotuma ko togge nga neexal lu ne nga defat ko danika man nga ca defat lu upp lo la nga ca defon te boko ko won sa keur jëli gi day yomb ndax mi ci bir keur gi yaa mom moom dong motax muni la ni laala allahu mën na mu amran mbir te moy nga bëgg sa jabar dellu wat looloo tax jigéen boo ko fasee bàyyil ci kër gi boo fasee mu génn rek sootul ñàkk nga jabar day tasanteeg benn waay ñu ko ah fan yi xanaa nekkoo sa kër jëkkër ba dara dalaa dal mu ni déedéet fan yëpp maa ngi suñu kër munu li xew baa jàmm la mu ni ah damaa teqali ko kooku nga dégg waa ji xanaa kooku dafa dof yow kan moo lay gis di teqali ko yow wax wax jox ma sa numéro mu jox ko numéro bi yenn saa yi waa ji orange mu ne ko mille yenn saa mu orange ne ko cent mille ñàkk nga jabar te loolu yëpp dootoo ko def loolu tax yàlla ni soo fasee bàyyil ci biir kër gi ba ay dëj yi mat wala balaa ay dëj yi nga jëlaat sa jabar moo tax mu ni wa tilka yooyu mu wax ni boo fasee bul génnee xuduudu laayi frontière yàlla la mooy sens interdit yàlla man yataadda képp koo xam ni jëlgati na xuduuda laayi sens interdit yàlla yi kooku de faqat zalama tooñ na nafsahu boppam laa tadri xamoo laalla allaahu mën na yàlla yox disu mu amaat baada dalika gannaaw bi nga fasee ba noppi amran beneen mbir mooy nga bëggaat sa jabar jël ko te bu nekkee ci kër gi lay gën a yomb bu demee seen biir kër bàyyi na loolu mi ngi indi beneen atte mooy sa jabar boko fassé mu commencé japp idda bi idda ji di bëgg a ñëw sa jabar mu nekkat sa jabar nga xamni du amat tak dang koy jël rek wut ay sédé su fekké ni nak xalaato jëlat su idda ji maté itam bu ko fa téye ko mu dem wuti benen borom kër yow nga wuti benen soxna lolay wax ci aya bi bi ci top mu ni fa ida balaghna su fekkee jege nañu ñoom jigéen ña ajallahunna waxtu wa seen idda waree jeex yéen jëkkër ña fase woon fa amsikuhunna na ngeen jëlaat seen jabar na ngeen leen fayliwaat bi maarufin ci lu baax ci njëkk bu ko fayli pour ni dama ko fi téye du am beneen jëkkër di ko maltraité loola lislaam di bañ moo tax mu ni fa amsikuhunna na ngeen leen jëlaat bi maarufin ci njëkk aw faariquhunna wala ngeen bàyyi leen ñu dem wuti beneen jëkkër bi maaruufin ci njëkk waaye lu ci mënti am su fekkee da ngaa fase ndaw si ba koy jëlaat wala nga koy fase bàyyi ko mu dem wuti keneen ñaar yooyu yëpp suy am bu ko def yow kese de wa ashhidu na ngeen seedaloo zaway adlin ñaar ñu maandu da wut ñaari góor ñu maandu ñu seede la wala benn góor gu maandu ak benn jigéen nga seede seede bi mooy lan nga ni kii kat sama jabar la dañoo amoon problème maa ko fase woon bi ma ko fasee dama kaa bëggaat jël ñoo ñu seede ni fase nga ko benn yoon jëlaat nga ko walla danga koy bàyyi mu dem nga ni leen kii sama jabar la woon maa ko fase bàyyi ko mu dem ngir ëllëg buñ ko gisee mu ànd ak keneen ñu xam ni waaja moo ko bàyyi woon loolu la wax mu wa ashhadu da ngeen sédelo zaway adlin ñaar ñu mandu mo xam ñaari góor la wala ñaari jigéen ak ben góor min kum ci yéen ci bu ngeen leen de fayli ji di leen delloosi wala bu ngeen leen de bàyyi ñu dem wuti keneen yéen ngeen wuti leneen bo reena wa aqimo da ngeen taxawal ashhadata sédega lillahi ñeel yàlla zalikum li yuazu bihi yàlla mo leen ci war kep ko xam da ngay fase na nga defé nonu buur na man képp ko wala nga ni daalikum loolu yuasu bi yàlla moo yuasu yàlla dana waar bii ca loola man koo xam ni kaana nekk na yuminu di gëm billaahi ci yàlla wala yawmil aaxiri ak bidu mujj ba bóor ne wa man yattaqillaa képp koo xam ne ragal nga yàlla ba li la yàlla sant nga def lim la tere nga bàyyi ni yàlla rëdde nga jaar fa nee kuy def loolu yajal yàlla dana defal loxoo ñeel la maxrajan génn waay àdduna bépp njàqare boo ci am su fekkee ragal nga yàlla dañ la ca génnee ëllëg yowmal qiyaam tamit yàlla dañ la ca génnee wa man yattaqillaa yaj'al lahu maxrajan boo demee ci benn téere bu tudd ni'matul aafil jaami sama sëriñ ba seydil xaaji malik si radiallahu taala anhu ma ngi fay wax ni képp koo xam ni la la yàlla sant yaa ngi koy defee nam la sante nee na yàlla dana la fegal njàqare àdduna dana la fegal njàqare àllaaxira waaye képp koo xam ne tamit yaa ngi nuur ci bàkkaar bàkkaar boo def nee na ba dana la jox mbugalum àdduna dana la jox tamit mbugalum àllaaxira loolu tax buur ni wa man yattaqillaaha képp koo xam ne ragal na yàlla yajal yàlla dana defal loo ñeel ko maxrajan génn waay ci àdduna ak wa yarsuqoo yàlla dana ko wërsëgal min haysu laa yaxtasibu fu mu foogul woon foo xam ne xalaatu ko woon buur ne wa man yatawakkal koo xam ne wakkirlu na mbiram yépp mu jox ko alallaahi waral yàlla koo xam ne si mbir yépp yàlla nga ko bàyyal kooku lay wax mu ne wa man yatawakkal koo xam ne wakkirlu na alallaahi ci yàlla fa huwa moom yàlla xasbu yàlla dana ko doy ci lépp inna laa naka yàlla baalixun aji jotal la amroo ay mbiram xat ca dëgg-dëgg jaala def na allaahu yàlla li kulli shay'in lepulung lepp lu waktu mën ci doon xadran waxtu lepp lo gis rek dafa am waxtu li tax mu wax la qad jaala allahu li kulli shay'in qadra day bañ ben mbir nga ni bayina ko ci loxo yalla mu yag lool te amu ci la nga bëgg nga xaddi bu ko def ndax waxtu wa jotagul yalla xamul war lu jot la xam lu jot rek mu def soy ñaan su jotey yalla jox la su jotul yàlla du la ko joxe comme ni nga ni ko bëggee loolu moo tax mu ne moom ne tawakkal képp koo xam ne wakiirlu na alallaahi ci yàlla nee na foo wa kooku xasbo yàlla doy na ko yàlla dana ko doy inna laa naka yàlla baalixun aji jotal la amroo mbiram xad jaala defal na allahu yàlla li kulli shay ñeen lépp lu mënti doon xadran waxtu loo gis rek dafa am waxtu woo xam ne bu jotee yàlla def léegi wax naa la ci ginnaaw ni jigéen buñ ko fasee ñetti deret lay toog su toogee ñetti deret mooy iddaam amatul buum gu ko fase gu ko takkee ak ki mu doon seyal mooy jëkkëram léegi nag aay bi ci topp mu ngi lay indil àtte jigéen bi nga xam ni moom gisatu règle deret jooju gisatu ko buñ ko fasee nan lay iddawoo loolu la lay wax mu ni walaa i jigéen ñi nga xam ni ya is na naagu nañu minal maxiidi ci gis deret mooy gis réegal min nisaa'ikum ci seen jabar yi inir tattum su ngeen sikkee su ngeen ja su ngeen werantee ci seen xidda ndax ndaw si dootul gis deret mu ni kooku fa na seen xidda salaasatu ashhurin ñetti weer la nee na kooku ñetti weer lay toog waaye ñetti weer yi nag da jàpp ci weeri wolof ñetti weer lay toog ci weeri walaf su toogee ñetti weer ci weeri walaf idda ja mat na loolu mooy atte ki nga xam ni gisatul deret beneen beneen aay bi ci topp attey jigéen di nga xam ni dañ koo fase te tàmbaleegul gis deret dafa ndawe am jëkkër commencé gul gis règle kooku nag lan mooy atteem xam nga aay bii ngay gis mooy daj yi ñuy wax mariage précoce aay bi moo ko daj te yàllaa leen gën a xam aay bi mi ngi jàngale jigéen ji ni fase ki sëy ba nu fase ko te ndawe taxam ndawe mooy atam yu tuuti tax na commencé gul gis deret kooku xiddaam la lay jàngal fii yonent bi alayhi salaatu wasalaam amul ku ko ëpp mën di ci jigéen biñ koy may Aïcha radiallahu anha juróom benn at la Aïcha am six ans biñ koy jébbal Aïcha neuf ans la Aïcha am juróom-ñeenti at kon buñ naan mariage précoce kooku sharia xamu ko sharia kay li mu xam def na ko sudul noonu précoce loolu la sharia di bañ mariage précoce moom sharia nangu bañu ko nangu na ko bu ne i jigéen ñi nga xam ni lam yaxit na tàmbaleeguñu gis deret ngir seen ndawe wa ulaatul ahmaali ak jigéen ñi nga xam ni dañ leen fase fekk dañoo ëmb mu ne ñu nga xam ni commencé gu ñu gis deret boo leen fas ñetti weer rek la ñuy toog ñoom seen att ak att ki gisatul deret ñoo yem léegi nag atte ki ëmb ñu fase ko kooku lay wax nee na wa ulaatul ahmaali ñi nga xam ne dañ leen fase fekk ñu ëmb ajalahunna seen xidda fa sëy ba di tase an yadaana mooy ñu sippi xamlahunna seen ëmb ba mooy ñu am doom bu ñu muccee rek am doom sëy ba tas na doonte ndaw si danga koo fase tey suba mu am dom idda ja jeexna mo ko xamni xam ni dafa faatu fekk mu ëmbu bu jëkkër ji faatu won tay suba jot ndaw si am dom teñji ba jeexna su fekke nak ëmbul ñent weer lay teñji ak fukki fan ci sharia su dee gor la su dee jam la nak أتبو وكان وخورك وهي جام مم أمطل شيخنا شيخ الحاج مالك رضي الله تعالى عنه ماني يني بدان تفسير القرآن بحزب بجيخ تمو خمن بتنبلي بين حزب من نام دو في جيخ ولا وقت جلي دي جاكسي دفاي تكتيري بمم الحاج مالك ni magni kon ni def touti fatawa ubbe touti ko am lamuy lacc walu dine mu lacc mais ci jataay yoyu ben bis am ko ko laaj ni ko gor gi man am na ñetti laaj mu ne ko ban ak ban mu ne ko bu ñëk bi moy ku ñuy tooñ bi ci sharia wax mu ne ko ak ban mu ne ko ak jaam mu ne ko ak ban mu ne ko ak Cheikh al tekk diko deglu niko ko ni togn mom yow yaa ko wax fexel ba bul bokk ci kuy togn bul togn kan ma yaana ko ni togn tele ni won alaaji malik dey bu nare nek ki togn yàlla nek ki ni togn ndax xam na ne azulmu zulumaatun yowmal qiyaamati tooñ ay lëndëm lëndëm lay nekk kon ku ñuy tooñ amul mooy baat boobu wolof di wax ngeen baal ma naan diw dëmm la amul do gis muk ñu wax ko borom askan wu mak do gis muk ñu wax ko borom alal do gis muk ñu wax ko koo xam ni wala maamam mo señ ci dekk bi doxandéem rek lañ koy wax kon bobu amul beut bu ay amna lamiñ amna yoyep amna amna ko xamni lamiñam lu mu tuddu mu yaqku lolo waral amna ko xamni beutam ni lu mu xol mu yaqku yonent bi wa màkka biñ ko fexale fexale mënu ñuko dara dañu jëli ay borom bu ju ay nit nañ ko nañ ñëw di toog ak moom bu yonent bi toogee ak saxaaba yi borom bët yi toog buqi ko seen bët yi di ko xool pour loolu di ko wàññi mu nekk cat ci lox ci yaramam yàlla jox ko aaya ba wa in yakaadu alladina kafaru la yasliquunaka bi absaarihim lamma samicu zikra wa yaquluuna innahu la majnunun wa ma huwa illa dikrun lil aalamina kon bët am na làmmiñ am na wax na ko wax na ni boo xëyee na nga ni yàlla maa ngi ñaan nga musal ma ci ayu lépp loo xam ne dafay dox musal ma ci ayu aw làmmiñ kon làmmiñ am na waaye nag ku ñu tooñ moom amul mu ko jaam Cheikh Al Hadj maa ngi amul jaam ki ni naan mooy jaam ci sumu jamono ndax jamono yonent bi booba jaam am na xare nga dem fa di jullit ñuy jàppale yéeféer yi ni jaam nga doo sax jaam waaye yéeféer ya bu ci jullit ñi jàppee kenn kooku mooy ab jaam ndax moo bañal yàlla ba ay jaamu yàlla xeex ak moom jàpp ko faw bañ gi mu bañoon jaamu yàlla looloo tax ay moroomu jaamam di ko jaamuloo laaj ko galak di ko liggéeyloo alaaji maa ngi jaamu léegi nag buur day ñëw ci benn dëkk ànd ak ay dagam daal di tëdd ndëndam daal ni dëkk bi ku fi fanaan tey dib jaam maanaam ku fi fanaan rek buur jàpp la ña wayaf ñëpp wayaf mooy seen bagage bëriwul bëriwuñu njaboot bëriwuñu ay jabar barewuñu alal daal jël lañu amas néew teg ci sareet daal di topp guddi génn dëkk boobu dem sañ ci feneen ñi diis nag mënuñoo dem ñu jàpp leen ni ñoo ñooy jaam laaju ni kii kay du jaam gor piir kon koku jam amatul mu ne ko ñeeño nag mu ko luy ñeño mu ko nit nga juddo ni nga juddo mu juddo ni nga judo. yalla binde ko fim la binde ndax ñatt ñun ñepp ci yam ñun ñepp ci suuf lañ jógee ñun ñepp ci suuf ci lañuy ñuy ñun ñepp ci suuf lañuy ñuy lolo tax lo reey reey suñ lay suul ak dara ji lu mu bare bare moo xam alal ji moo xam xaalis moo xam ab yonent nga moo xam nitu yàlla nga moo xam baadoola nga buñ lay suul ñetti yooyu faw ñu fàttali la ko balaa ñu lay jugal ci bàmmeel bi buñ la tegee ci suufu kuusu bàmmeel bi pour dugal la ci biir bàmmeel bi ak koo mënti doon ñuy suul ñu ngi naan mi na xalax naakum ci suuf soosu lañ leen bindoon min ha xalax naakum ci suuf soosu ci lañ leen bindoon wa fiha ci suuf soosu lañ lay delloo tey muy sa bàmmeel wa minha nuxrijukum taaratan uxra ëllëg ñëpp ci la ñuy génn amul kii amul kële kon fu nit di gën nit kon ki ngay wax nii ab ñeeño la nga xewle mu xëy suba ba ngoon jot taxaw ci sa diggu nawle yi li nga baax la yépp mu wax ko li nga ñaaw la yépp mu nëbbal la ko di la liggéeyal di la liggéeyal di ba ngoon nga yëkkati la ngay yëkkati may ko ko alaaji maalik nee loolu bu lewul man alaaji maalik xaw ma lu lew mu ne kooku itam bu dul sang gisuma kudul ku ko gën a nekk sang ndax yonent bi moo waxoon ni man tawaadaa lillaahi rafaahu ilayhi te ku rëy munul loolu nga tax man sëriñ bi ma doon jàngal daf ma waxoon ni ma Pape Maxtaar ma ko labbayk mu ma yàlla ba may bind su ma tàggu woon ñu ma loo bëgg a nekk dama naan ko ab géwal mais ma ne ko sëriñ lu tax nga wax loolu mu ni ma géwal tëgg yi ñi ñuy tuddee ñeeñoo lawbe yi ràbb yi mu ni ñooñu dama gis ni lu yàqu ci àdduna ñooñu mën nañ kaa defar lu yàqu ci àdduna mën nañ kaa defar mën nañoo sagal nit mën nañoo fekk ñaari nit yoo xam ni du ñu laalante ñuy wax ba ñu laalante mu ni ma ñii ëllëg amul ku di jiitu aljana su fekkee ñu ngi doon julli du woor léegi nag bu fekkee idda yi jaam la ba jaam dee am ci jamono yonent bi bu jëkkëram deewee mooy ki ko yoroon sangam idda am ñaari weer la ak juróomi fan bu dee gor nag bu sa jëkkër deewee ñeenti weer la ak fukki fan loolu lay wax fii léegi nag addee ku ëmb la lay wax mu ne wa ulaatul ahmaal yi ñi nga xam ne dañoo ëmb ajalaw na seen dik an ya daax na mooy ñu sippi xam la na seen ëmb ya wa man yattaqillaa képp koo xam ne ragal nga yàlla yajal yàlla dana def loxoo ñeel ko magrajan génn waay wa man yattaqillaa képp koo xam ragal ne yàlla yajal yàlla dana def loxoo ñeel ko min amri yi ci mbiru addunaam ak alaxira yusran jàppandal كيف هو خامنئي رجال عند الله سأدون دينه سأله خير دينه ذلك لولو ملا وقت يحدي ملمي يب أمر الله أتى الله لا يا الله واتينكو إليكم تيين ومن يتق الله كيف هو خامنئي رجال عند الله يكفر يا الله دنا بال أن هو أي بكارم كيف هو خامنئي رجال عند الله نعطي في عند فني الله دنا لكو جيجل ويعزم يا الله دنا ريل لهو نيلكو أجرن أكبي يوم القيامة bàyyi na loolu aay bi ci topp dafay bañ nga fase sa jabar ba pare génnee ko fi nga ko dëkkaloon dëkkal ko feneen foo xam ne fi mu njëkkoon dëkk balaa nga koy fase ci biir idda ji moo gën loolu tax buur nee na askinowu na na ngeen leen dëkkal min haysu sakantum fas fa ngeen dëkk min wujjikum ci seen kattan buur nee na wala tudaaruhunna bu leen leen lor ñoom jigéen ña buur nee walaa wala tudaaruhunna bu leen leen lor ñoom jigéen ña li tudayiqoo ngir ngeen xatal alayhinna ci ñoom ci dëkkuwaay yi génnee leen wala téye dépense ya fekk da ngeen leen fase ñuy jàpp idda buur nee na bu leen ko def wa in kunna su fekkee nekk nañu ñoom jigéen ña ba leen di fase ulaatu xamlin di ëmb seeni doom fa anfiqoo na ngeen dundal alayhi na ci ñoom xataa ya daax na ba ñu sippi xamlawun na seen ëmb ya bu fekkee da nga leen fase fekk dañu ëmb itam na ngeen leen dundal su nee dund waxoon na sa jabar boo ko fasee yaa koy dundal kon fii lim bëgg a wax dund bi yow la war analyse yi muy def yow la war écho yi muy def yow la war rajo yi muy def yow la war ordonnance yi muy am yow la war li muy war a lekk ci jamono yooyu muy lekk yu baax yow la war doonte fase nga ko moo tax mu ne fa anfiqu na ngeen dundal alayhinna ci ñoom dund gu baax xataa ya daana ba ñu sippe xamlawun na seen ëmb ya fa in ardaana nag lakum kooku beneen atte la sa jabar bu fekkee da nga ko fase mu ëmb yàlla dogal nga dundal ko ba mu wasin am doom bis bi mu amee doom rek nekkatul sa jabar doom ji sa doom la bis bi mu wasi am na droit ñëw jël doom ji jox la ñi la sa doom a ngoog léegi nag ngeen waxtaan nga ne ko nàmpalal ma sama doom ngeen waxaale da koy fay pour mu nàmpal doom ji ndax soow mi soowoom la te doom ji sa doom la yow la ko sharia jox loolu la àtte bi di wax mu ni fa in ardaana su fekkee nampalal nañu gis nga rek fa in ardaxna su fekkee nampalal nañu lakum ñee leen seen doom ya fa a na ngeen leen jox ba mu mat sëkk ujuuroo na seen fay wa tamiroo nag na ngeen diisoo na ngeen waxtaan baynakum seen diggante bi maarufin ci waxtaan wu njëkk na nga ne ko loo may nàmpale sama doom mun la weer wu dee da may jox fukki junni ba ñaari at yi mat wala at genn wàll nga ne ko déet waaye ndaw si seer na dafal ma weer juróom mun la déet man weer fukk rek laa man su ngeen dëppoo ci weer fukk weer wu dee nga jox ko fukki junni mu nàmpalal la su fekkee dëppoo wu leen ci weer fukki junni nag charia nee na la jox sa doom nga wuti ku ko nàmpal keneen loolu lay wax fii mu ni wa tamiroo na ngeen diisoo bay na ko mooy waxtaan bay na ko seen diggante yéen ñaari couple yi bi maarufin ci waxtaan bu rafet ba dëppoo ca nàmpal ga su fekkee déggoowu leen kon fasa turdixu na nàmpalal baay fasa turdixu na nàmpalal lowoo ñeel baay ba jur doomam uxraa jeneen yaay na wut beneen jigéen mu nàmpalal ko doomam bu wóor ne lu na dundal su saaxatin borom alal ju bari min saaxati yi comme yaatuwaayu alalam su fekkee da ngaa fasa sa jabar mu lay nàmpalal sa doom fekk yow borom alal nga nee na jox ko lu am solo loolu lay wax foofu mu ni waman li yunfiq ngir na dundale su saatin borom yaatu mooy koo xam ne dafa am wërsëgu yaatu min saati comme ni yàlla yaatalee wërsëgalam waaye waman qudira koo xam ni néew na alayhi ci moom risqoo wërsëgam kooku fal yunfiq na dundale moom tamit mimma ataahu laahu comme ni ko yàlla jox comme kàttanam rek ndax laa yukallifu tegul allahu yàlla nafsan benn bakkan illa ma ataa lu dul lim ko jox yàlla tegul kenn loo mënul sa yejaalu nag dana def allahu yàlla baada usrin gannaaw xat-xat yusran yombal yombal bàyyi na loolu ay bi mu ngi wax ak ñi weddi yàlla bañ ko jaamu mu nu delloo leen seen xel ci ginnaaw ngeen xool ay réew ak ay dëkk yoo xam ne ñoo leen ëppoon kàttan yéen waa Màkka xool leen Saam gi ci seen wet amna ñu fi dëkkoon weddi bañ ma weddee maa leen alak ñoo ñoo leen ëppoon doole ñoo leen ëppoon alal ñoo leen ëppoon moyen ñoo leen ëppoon i pexe gën leen soxor te ba ma yegsee ci ñoom dama leen alak loolu lay wax mu ni wakk ay yéen bari na min xariyatin ci dëkk ata dëkk boo xam ne mooy nañu su ne dëkk nag dëkk du mooy yàlla waa dëkk baay mooy yàlla ميني نان واسال الخريطه لاجل دك بي سو دمي دي لاج وا دك با كين دولا ووي داغي لاج وا دك با واسال الخريطه لاجل اي وسال اهل القريه لاجل وا دك با واي دو دك با في تاميت الاغول دك با واي ني دكون دك با لا الاك لول لاي واخ في بور وك ايين بارينا من غريه جيب دك عتت دك بو خامني موي نانيو ان امر ربها تي ديغالي سين بروم wa rusuli ak yonentam ba fa xaasabnaaha ñu regle leen xisaaban regle shadidan gu métti fii ci àdduna mooy ñu teg leen feebar wala ñu teg leen ñàkk wa azabnaaha gannaaw bi ñu leen tegee feebar fii ci àdduna wala ñàkk wala musiba ba ñu dee ba noppi wa azabnaaha ñu mus ñu mbugalaat leen إلا يوم القيام هذا بن بقول نكرا بقول ممت تموين لكوك سفر نيو بلين سفر فزاق النموس وبال أمر آ آه. مبسوك سين بير ما تموين سين ويدوا نجوغ لين چين بقول وكان نكين عاقبة أمر آ آه. مجوك سين بير خسران دي پرس تموين ألاك ألكاند أعدى بربارنا الله يالله لهم يالين عذابا بقول شديدا بمتي سنة يالله بربارنا دولمو بربار دول نقبو نوبي حتى دخلنا الله يلا لهم يلن عذابا بغل شديدا بمتي فاتقوا الله كون رجلن يلا يا اولي الالباب ايين برم خلي سلي الذين قالوا خمني امنوا قم نيو قد انزل الله يلا واتينا اليكم تيين ذكرا القران بما واتي القران بنوبي مو يوني لين رسولا يونت تموي سيدنا محمد sallallahu alayhi wa sallam yatlu ma ngay jàngat aleykum ci yéen ayaatillaahi alquraanu yàlla ji mu bayyinaatin muy lu leer naññ lu tax lu yuxrija ngir na génnee alladina gaa yi nga xam ni amanoo gëm nañu yàlla wa amilu saalihaati ñu def farata yi ak naafila yi yàlla génnee leen mina zulumaati ci lëndëm lëndëm weddi yàlla ila nuuri jëme leen ci leeri gëm yàlla wala ila nuuri jëme leen ci leeri gëm yàlla ومن يؤمن كيف كو خامني گمنا بالله تي الله ويعمل مجف صالحا جف جيو كوكو يالا نين يدخله دنا نيو كتابل جنات اي الجنه تجري يو خامني دنا داو من تحتها تشوفم الانهار اي دخ خالدين ني وي بيل يالا نتي الله بوله فيها تبير الجنه ابدا بفاو خط احسن رفتلنا الله يالا لو نيل كوكو مو دوغال الجنه te moo gëmoon ci def jëf yu yiw yi xad axsana rafetal na allahu yàlla loo ñeel ko risqan wërsëg képp ku dugg aljana rek am nga wërsëgu rafet wërsëgu rafet mooy dem aljana ndax mooy wërsëg woo xam ne dootul dagg bu dee alal ji lu mu bari bari bis dina ñëw nga dem wala mu dem bu dee wér gi bis dina ñëw wér gi bàyyi la fi bu dee mën gi bu dee kàttan gi lu mu mënti doon ñu koy tuddee wërsëg rek ci àdduna bis dana ñëw mu dem ci yeneeni loxo wala nga dem feneen bàyyi ko fi waaye bu dee àjjana nag boo xasee bu dugg dootoo génn te dootoo teqali koog moom soo génnee àjjana fa ngay dem mooy dàqaat aljana te mooy gis yàlla yàlla ñu ko yàlla defal buur nee na allaahu yàlla alladi mooy buur bi nga xam ni xalaqa moo bind sabaa samaawaati juróom-ñaari asamaan yàlla bind juróom-ñaari asamaan te xoolu ko fenn moo ko njëkk a def allahu yàlla alladi mooy buur bi nga xam ni xalaqa moo bind sabaa samaawaati juróom-ñaari asamaan xoolu ko fenn wa min al ardi ak suuf mislahu nag kem juróom-ñaari asamaan mooy juróom-ñaari suuf yatanazzalu dana wàcc al amru mbiru waxyu baynahu na diggante asamaan ak suuf kan moo koy wàccee jibril mooy jóge asamaani juróom-ñaar wàcc di wàccee waxyu ba fa soob yàlla ci suuf yi loolu lan moo tax mu koy def di taala moo ngeen ngeen xam anna laa naka yàlla خدير كو ام كاتن على كل شيء تي لب لو منتي دون يالا ام كاتن تي لب لو منتي دون وان الله انك يالا خد احات بيغنا بكل شيء تي لب لو منتي دون علما تي خم خم لب لو غيس رك يالا بيغنا كو خم خم صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ولنا ورزقنا من الشهيد يالا كو يالا نانغو داف كو ادي يونتي بي صلى الله عليه وسلم سوتكو تي ريو مي دي سنغال اك ريو جولي ييب اك ريو ادنا تي بارك يونتي صلى الله عليه وسلم لول مو نيكون سين تفسير القران تاي عندك سين بوك دارا الاستاذ فمختار سيل في تي زاويه مام شيخ الحاج عمر الفوتي رضي الله تعالى عنه في تي Scat Urbam ci Grand Yoff ànd ak Safina TV ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen jox dig daje ëllëg incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.